Euh, nuyoo baa ngi fi bu ngeen paree jël ko ñu dugg ci li nga xam ne euh, mooy xibaar yi nga xam ne tey jii euh, bokk na ci li ci gën a fees nga xam ne Sadio Mané danañ ci dikk ci mujjantalu xibaar yi waaye la ñu njëkkee mooy Sénégal mi nga xam ne bi ñu defee yëngal gësam équipe yi nga xam ni ñoo gën a seer ci adduna bi balaa ñuy dem ci coupe du monde bi loolee bi ñu ko yëngalee ba xool équipe yi nga xam ne ñoo ci gën a seer Sénégal ña ngi ko tabb ci fukkeelu place bi ak ñeent fukkeelu place bi ak ñeent nag day wane jom wane fulla ak fayda gi nga xam ne gone yi ak équipe boo xam ne daanaka ñu bari ci tubaab bu ñuy def seen analise analyse jàpp nañ ni Sénégal mën naa dem ci dernier carré yi ba ci leneen nga xam ni mooy final boobee ñu bari xalaat ko loole tamit xalaat boobu du xalaat bu réer ndax bu ñu xoolee effective bi nga xam ne gone yi am nañ ko gone yi bu nu yokkee jom yokku fulla ah, deret ji di daw muy dereti eh, Sénégal di dereti nit ku ñuul di dereti gaynde njaay mbara wàcc loolee dana leen dimbali bu baax a baax ci li nga xam ne mooy mat yi nga xam ne war nañ koo dëgmal mu nar a am solo bu baax a baax beneen information di Sadio Mané Ah, mi nga xam ni ah, tey jii daanaka Sénégal gi yëpp ñi ngi koy sikkimu ah, di ko ñaanal loole moo tax bu nu sukkandikoo ci journal bi nga xam ni mooy Les Échos yéenekaay Les Échos gën naa yaatal information bi nga xam ni daanaka ci moom lañ ko jëlee du suñuy wax ma ngay xam la ni fan fanweeri imaam ak juróom yoo xam ni ña nga dajaloo fële nga xam ni mooy mbàmbali lanu fay nag di wàcce ay kaamil ngir gonek Sénégal yi ñaan yoo xam ne ñu ngi ko fay ñaanal ci yàlla sunu borom mi nga xam ni mooy maye te lépp loo xam ni def na ko moo gën mu ñaanal gone gi bu ko defee wala boo toog mu ñu ñaanal gone gi bu ko defee lépp nekk ci jàmm mu am ay tawféex ba mën a delsi ci li nga xam ne mooy coupe du monde boobee nga xam ne moom la ñuy amul fële ca Qatar loolee bokk na ca tamit ca ñaan ya Sénégal def coupe du monde boo xam ne daanaka dana mucc ay coupe du monde boo xam ne yàlla def ci ndox mu sedd bu ko defee Sénégal mën a jël coupe bi daal di koy indi fii nga xam ne mooy réewum Sénégal loole bokk na ci ñaan yi nga xam ne Sénégal gi yëpp ña nga koy wax amin kon loole am solo bu baax a baax yeneen information ñu ngi koy togg léegi ci kanam tuuti di bi diir ak coupe du monde bi ah, te ngeen abonné dara du leen rëcc ci information yoo xam ne yu wér la te wóor ah, ngeen def ci ànd bi ak alxaaji Malick am na solo lool